thank you bëre rek la bëgg njol toj toj moo toj kaan ni pàccal li ngoom na ci bëggëj naan ñeex ma te naan ñeex naa yow lay waxal lan la. ah. kër goo xam ni kenn mënu fee noppalu. Oh. kenn mënu fee nelaw. bëccëgu koor ma bëgg nelaw nit tëdd sama néeg bi di noppalu. Oh. mënuma ko ndax sa yuuxu lan la. Eh, tey du bésu noppaleku dama amee chagrin d'amour. lan la. dama amee chagrin d'amour. chagrin d'amour moo tax nga toog fii di jooy. Ah. man des na tuuti damay génn kër gi bàyyi leen a kër gi. Ah. parce que man dama sonn mënu ma nekk ci biir néeg bi war a nelaw noppalu yéen ngeen nekk fii di yuux weew lan ngay jooy. Eh, sa grain d'amour. man pour man sa dijaay bi toog fii moom moo dee. yàlla nga dee yow. non eh, mais yow di ça va pas yéen yéen parce que vous êtes en fait yéen bàyyi leen a kër gi. ah yow dimbali ma waaye yow ki la bàyyi nag moom moo yey parce que tu es tellement moche. ah, ah. dégage waay. man mos sa ñaawaay. loolu yàlla ma ko teg ma yow da rafet nii. trop yow xam nga ne ma jooju dafa rëcc rek waaye gisuloo woon bu baax. iñaan soxor li ma dal bu la daloon xam nga ne di fii nga yow da ngay këpp sax nga naan may ay fii nii rek ngeen mel. waaw. <laughs> Oh! booy. looy jooy. li ma daal mënuma la ko wax quoi. mais weeru koor waroo di lekk du yoon lii nga def nii du yoon même bu fekkee dangay ngay lekk nga suturaal sa bopp dugg ci biir nekk. li ma daal ah, ànd la koor. lan moo la daal.

bëggoon naa la ndax trop mais mais tamit da koy fàttali sama secret d'amour hmm? te kuy nax mënul jooy kuy nax kuy jooy kuy jooy mënul nax kuy jooy je suis désolé boy jooyee la merde am na lu fi xew man dinaa ko wax loolu lu mu kër ndono bi ci koñ bi ak koor gi rëba rëba rëba rëb eh, eh stop eh eh, eh, eh xam nga lan la xool ka kanam gi ne fëriñ gu doog dama bëgg nga explique ma explique ma clairement ngay bajaxu nii rek ma jooja dama amee secret d'amour waaw boo amee secret d'amour nag ah boo amee secret d'amour ni ngay vivre sa secret d'amour di lekk waxtu bu la neex li ma dal munu ànd ak lekk munu ànd ak koor ey eh, dama ni boo fi amee secret d'amour fekk fi ñu fi am fondement d'amour te dañu koo gérer di tenir ko ba mu mat bàyyi lu leen cere ji wow naa laa ne ngeen da di dog bàyyi leen koor gi ngeen di fowe sa secret d'amour képp ka sa bokkotaan ba nu dog jot nga génne ko wax ak réew mi lan la eh ah da agaraaf da ngay taawi mba waxal ak man joojo ak sa soow mu far mii nga defar ba joojo mhm. sama nijaay njaga seek waaw mi nekk ngaay doomam ba mu am fukki at ak ñett laa si takkoon morso mhm. ñuy dem léegi ba mu am fu fukki at ak juróom ñett waaw barkaat démb ñu wooma mhm. ma xale bi léegi am na fukki at ak juróom ñett ma ne leen may leen ma tuuti tey jii ma xëy si sama nijaay dama tàgg ne mu ngi dem ngaay mhm. ma ne ko nijaay looy def ngaay nee na mu doomu njaga sekk bi la ñuy may taman maas dégoor sama yaakaar <laughs> <laughs> yow xam nga li nga defoon sa yaakaar. ah yow xam nga li nga defoon sa yaakaar. mais maa ngi takk morso man maa ngi takk morso. yow allelu procureur Bassirou Gueye ngay def sa yaakaar yow. nga ne. nga naan dama am secret d'amour yow est-ce que xam nga sa peenu gendarme euh, kasama nga tege. Eh, yow xale bu mesure gul. ah kay am na fukki at juróom-ñett léegi. ñett waay yow. nga yaakaar justice lan la lan la gën a bañ justice nga yaakaar lan la gën a bañ. li nga def ay at nëbb ko ko justice bëggul ko ko nëbb loolu nga ko nëbb nag diggante boobu yëpp ay peine la ci yow lekk sa mbiskit gi ndax mi ngi bàyyi bu procureur na gisee la nag di nga xam lépp dëgg la ba joojo bar xale bi dama ko ma nekk Dakar boo ko bàyyee béyk Dakar lax gi nga ci lax sa xel loolu l'amour la te loolu conséquence gi danga koy fay ma ñaareel laa ko bëggoon def ñaareel lu may wax cee nii yow amoo loo lekk amoo loo yore sa aawa ngay wut ñaareel looy wut ñaareel ñaareel ku mat lee koy wut. loolu ndonneef la suñu dëkk ndonneef la. ah ndonneef la seen dëkk. waaw donnu ngeen lu bon nag wax naa leen ko maa ngi ñëw dem nag. danga lekk sa mbiskit gi bala muy bàyyi fii ndax bu bàyyee col force lay nekk xam nga mbiskit yi dañ ciy def ay omeñaag ak lu ne maa ngi ñëw. am na lu fi man te naan neex naa